appartement bi juróomi xale yu góor ñoo fi dëkk ñoom kontoor woyofal la ñuy jëfandikoo ngir am courant waaye nag tàmbali nañu di réccu lu ni mel ab diir a ngi nii bu ñu chargé day gaaw a jeex lool. boo daan sol par exemple dix mille francs ci appartement bi dañuy dem ba fàttali ne chargé nga courant léegi boo solee dix mille maximum du def quarante lu weesu quarante jours wala quarante cinq jours ci appartement boo xam ne si ni amul congélateur amul clim. trois ventilo la fi nekk ak ay quelques lampes ba ci sama magasin bi ma am Sandaga bu ma daan sol 10 mille foofu la dafa am clim da daan durer une semaine léegi 72 heures bu koy am di fay amul mënam da ñëw. mel na ni ñi di jëfandikoo compteur woyofal la ñëpp yëkk yëf yi am na sax ñu tàmbalee di réccu compteur yu njëkk ya ñu bàyyi. mais actuellement fu ma doon di recharger 5000 naa ci naa ci dolli yeneen mille pratiquement. bi pratiquement trente mille te quinze mille rek laa ci doon kii wala vingt mille maximum. boo jëndee cinq mille franc bu njëkk sa cinq mille franc bi day dem ak yow même bu dee presque benn xaaju mois la sax mais léegi cinq mille franc bi du def ak yow sax deux semaines. Ramdane Seck bokk na si ñiy njëkk a jëfandikoo compteur Woyofal bi nga xam ne ni lekk ci atum 2005 la ko lancé moom bañ na ko ba sax boîte bi mu yor wute nag ak yu bëri. compteur bi ma yor nii ak yi ñu ñoom léegi ça fait deux bokkut moo tane ci crédit bi parce que boo utilisé wul yenn yi sax dana yàgg. compteur yi woyofal li ko taxoon a jog mooy fexe rek ba consommateurs yi mën a jëfandikoo seen courant si anam gi mu leen neexee waaye nag mel na ni yëf yi coono kott la leen andil li ñuy sàkku si lekk mooy mu andi leen ay leeral si li waral yokkute gi ñu nemmeeku ba si jamonoy seddaay sax.